bienvenue sur Salam Vision. man ku ma gën ngir taxulaa bon ngir Mamadou Lamine mooy sama gën. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala xawata illa billahi al aliyyil azim auzu billah bismillah inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokku internet yi nga xam ñu amaat mbégte feggowaat ak yéen tey. ci suñu beneen jotaay boo xamante ni wax dëgg yàlla askanu Sénégal moo ko tax a jóg plus particulièrement képp koo xamante ni diine ñor na la yaa ko tax a jóg muy émission bu yees woo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko dippee li nga xamante ni mooy leeru diine 313 fas yéene ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Oustaz Babacar Ndiaye du boroom xam-xam di nitu daara macha allah nekk itam ci ay group whatsapp yu bëri yoo xam ne saa su ne mi ngi fay def ay waxtaan yoo xam ne lépp itam mi ngi aju ci diine dëkk itam fii ci diwaanu Grand Yoff ci ndakaaru moom lañ ci fas yéene àndal ayu bés bu ne incha allahu rabbi taala bëgg itam lépp loo xam ne doon doon na xam-xam mu nekk ci téere yi rawatina mu doon digle suñu borom tënku ci li nga xamante ne mooy charia ñu fas yéene ci àndandoog moom ngir jagle leen ko yéen askan yoo xamante ne yéen a ñuy teewlu ni ñuy def rek mooy dañuy daal di nuyoog moom siyaaranteeg mboom jox ko kàddu gi mu daal di nuyoog askan wi nga xamante ne ñoo koy teewlu ci jamono bi tembe daal lay wax ne oustaz Babacar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp. macha allah. leen di wax aawadu billahi min ashaytaan rajim. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp. di leen di ziyaara. Mm-hmm. Ah, comme ni nu ko waxee léegi rek fa tabaarakallaahu e, ab jaamu yàlla lañu. bokk ci jaamu yàlla yi gën a doye di. ndax yàlla moom ci péyam amul aw tur. Mm-hmm. jaam rek moo fa am. kon na ngeen xam ne ñun ay jaam lañu. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax naan aaya bi ko gën a bégloo ci alquran mooy fii yàlla reconnaître na ab jaam la subhaana alladi asra bi abdihi laylam min almasjid alxarami ila almasjid alaqsa alladi barakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir kon ngeen xam ne noonu ay jaam rekk lañu insha allahu taala Euh, nuyoo baagoo kenn desul. kilifa diine yi. Mhm. kilifa aada yi. Mhm. tabaarakallaahu ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax. Euh, di fes yi nag incha allah delloowaat la kàddu gi. Mhm. Euh, Cheikh Talla. macha allah incha allahu taala ñu jublu ci waxtaan wi. incha allah dem sëb na yàlla. jërëjëf yaa Oustaz Babacar Ndiaye macha allah ci nuyoo bu solo boobu waaye ci siyaar bi ak mbooleem ñaan yi rek. di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo am moo sañ moo mën te mooy def itam. Mm-hmm. yàlla na yàlla euh, jàppandal ñu lépp bañ yeggaleeg sago. amiin euh, bu ko defee itam yàlla na ci def dégg koo xamante ni wax dëgg yàlla ku ko dégg ku ne mu doon ak njëriñ ci yow. amiin te ku ko jëriñoo itam yàlla na doon topp ci yow ba nga mën cee jëriñu. macha allah rabbi yàlla na ko yàlla def. amiin oustaz wax dëgg yàlla leeru diine 313 tey jotaay bi mu njëkk a bëgg tàmbali ak yow. Mm-hmm. dañu ko bëgg tënk ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy xew-xew bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal bokk na ci wax dëgg yàlla muy tabaski gi nga xamante ni wax dëgg yàlla. nee naa réew mi ñëpp daw nañu ba sonn ndax rek dara waralu ko lu dul xarum tabaski. wallaahi ma bëggoon oustaz tey nga baaxee askan wi. rawatina jullitu yàlla yi. xamal leen lan mooy tabaski. ndax bëriwaat na baat bi ñu koy dégg. te dëgg dëgg dëgg. xamuñu lu mu wëndu maanaa bi xamuñu yenn ca biir waaye ñu xam dëgg-dëgg baat bi lu mu wëndu am lu ko waraloon su ko hmm. defee ñu door a dugg si jàng léegi ci faram fàcce ko lan mooy sunna yeeg farata yeeg yamu àndal yëpp yamu làmboo insha taala macha allah hmm. tabaski hmm. comme ni nga ko laajee sunna la maanaam sunna la boo xam ne képp koo xam ne mën nga ko rek war na la waaye ana lan mooy sabab bi yontu yàlla ibrahim alayhi salaatu wasalaam dafa nekkoon ab yonent boo xam ne mhm. yonent bu bëggoon boromam la boo gisee yàlla da ko mujj a jàpp mhm. mu doon ab xaritam la moo tax yàlla jàpp ko mu doon xaritam macha allah yonentu yàlla mhm. bu ne moom yonentu yàlla Ibrahim daana rey walaat mu ne lu tolloog ñetti junni ñetti téeméeri junni ci ay gàtt wala junni gàtt. la daan rey. par at. par at. rey ci ñetti téeméeri xar. Hmm. ak téeméeri gileem. nit ñi di yéemu. Hmm. naan ko Ibrahim lii ngay def nii. Hmm. gàtt yu bari yi sa alal ji ngay rey. lu tax nga koy rey mu ne lii de du dara ci man. ndax yàlla moom moo ma ko jox. wallaay maa ngi leen di waatal ne yàlla suma ma joxoon doom sax mhm. mën naa koo rey jaamoo ko ko moom yuntu yàlla ibrahim ay jamono di dox moom fàtte na sax waxam joojunte mhm. waaye ku ñu wax saarata nekkoon soxnaam ñu toog mhm. at yu bëri taamuñu doom xam nga suma yàlla joxoon nangam dinaa def nangam ci lislaam niger boobu dafa foor fi mu toll nii soo soo laajee yàlla dara. Mm-hmm. yàlla jox la ko te defoo la nga waxoon ak yàlla rek. Mm-hmm. da ngay am bàkkaar bu rëy. kon da ngaa am loo waxante woon ak sa borom ba noppi. respecté teggi kàddu yooyante. Mm-hmm. mu ne bu ma yàlla joxoon doom sax dinaa ko rey jaamoo ko yàlla. ay jamono di dem. Cheikh Talla jamono di dem. ba mu yàgg rek yàlla jox ko doom. ñenn nañu nee nañu. Hmm. doom ji ci septembre muy Ismaïl. Ismaïl nag. Haajara hmm. moo ko jur. Hmm. mooy yaayam. gis nga saarata mi nga xam ne moom la nekkoon nag. mu doon soxnaam. saarata nekk na ak ab diir bu yàgg amuñu doom. Haajara ca kër ga la nekkoon. doon fa ab jaam doon fa liggéey. waaye comme amut ak doom moom. mu jël Haajara takkal ko borom këram. ndeysaan Cheikh Talla lu jafee ngi noonu. wallaahi ndeysaan. sa borom kër. Hmm. amoo doom ak moom. nga gis beneen soxna bu baax. Hmm. boo wóolu léppam. Hmm. nga jël ko takkal ko sa borom kër ngir mu am ca bant. ndeysaan ak a jafe ci jamono ji. wallaay jafe na ci jamono ji. loolu nag mbaax la. wallaay ndeysaan amul. waaye nag mbaax dëgg dëgg foofu la mën a yem. Cheikh bi mu demee ba nga xam ne ëmb na moom Haajara te Ibrahima booba mag la. Saarata booba mag la. xalaatutuñ woon sax am doom. Hajara ëmb xolu fiiraange mujj dugg Saarata. Saarata tin jamono bi nga xam ne Hajara ëmb na. Saarata dafa ëmbaale te mag la. xolu fiiraange dugg ko. mu ne ko kii mënutuma bokk ak moom kër gi foog mu génn kër gi. <laughs> te kat moo ko ko mayoon. Ibrahima daal di koy jël di dem. Mhm. di dem. ba ci désert bii tey. nga xam ne Makka désert la woon boo xam ne amutoon dara. Mhm. moom Makkatal Mukarram. Hajara mhm. nekk fa. Mhm. am doom xolal nga am doom ci àll boo xam ne ndox amu fa. lekk amu fa nekk ab àll nekk deser boo xam ne dara amu fa. Ismaila moomu. juddu Hajara nekk euh, ak. Ibrahim léeg-léeg Ibrahima jógee fa muy jógee dem di seeti soxnaam soosu di euh, euh, Hajara su demee ba nga xam ne mhm. bés am na juróom-ñaari at ñii na déedéet treize ans la mhm. bés nag mu tëdd guddi gént ñu ne ko yaa Ibrahim yow Ibrahim mhm. matalal sa la nga ca la nga waxoon parce que daf ne su amee doom sax mën na koo rey jaamoo ko yàlla ndeysaan Ibrahima di xool naan lii danaa seet ndax seytaanee koy wax mhm. wala ndax ci yàlla la jóge bi nga xamee na seet na ba seet mu ne ah tëdd deuxième guddi bi mu xëy ne lii xam naa ne kon ci yàlla la jóge mhm. boobu arafaat gi ñu tuddee arafa xam gi mu xam ne mhm. yàlla moom moo ko wax pour mu rey doomam moo tax ñu tuddee gii tey arafaat gi arafaat parce que fa la xamee na yàlla moo ko sant ndekante digg bii moo xante moo nag moom. Ibrahima toog ndeysaan ñëw ci troisième jour bi war a rey nag Ismaïl. allahu pour wax rek tabaski li ko indi. Mhm. bi nga xamee ne ñëw na ci Haajara nga xam na benn doom boobu rek la ñu am. Mhm. mu ko dama bëgg sama doom ji nga solal ko yére yu rafet. nga peñe ko nga parfum ko ndax dafa am fu mu bëgg dem ak moom benn barab Hajara daal di koy solal yére peñe ko waaye li mu def loolu lépp Cheikh Talla Cheikh Ibra Ibrahim yuntu Yàlla Ibrahim mhm. mi ngi yor benn buum ak paaka mhm. waaw ànd ak moom Ismaïl doom ji mi ngi jiitu pappam ci kanamam mhm. parce que loolu dafa am solo léeg-léeg luy lore yow miy njaboot del nangu mu njëkk laa lor laata muy lor sa kilifa. lay wax nga dëgg. jiitu euh, Ismaïl jiitu papa yi topp ci ginnaawam. Mhm. ñuy dem seytaane Iblis. Mhm. yal na ko yàlla gën a rëbb. allahumma daal di ñëw ci Ibrahim comme doom ji Ismaïl mooy jiitu. Mhm. seytaane ñëw ne ko. sa doom ji rafet ji sa doom ji njool ji sa doom ji jekk ji. waaw Ibrahima lan moo tax nga bëgg koo rey mu ne parce que kii sama borom moo ma sant ci ay nelaw ne naa ko rey mhm. mu ne ko ay gént rek tax nga bëgg rey sa doom mu ne ko demal yàlla moomu ko sant mhm. mu ñëw ci Ismaïl wax ak moom ci yaayam sax la njëkk a dem Haajara ne ko Ibrahima nga ne leen ndax wax na la li muy defee Ismaïl mu ne ko ah déedéet solol la wax na naa ko solol rek peñe naa ko defal naa ko lépp mu ne da koy rey de mu ne bàyyi nan lay reyee doomam mu ne bàyyi nan lay reyee doomam solal ko ba mu rafet mu ne ko ah da koy rey hmm. wax naa la ko waaw mu ne est-ce que wax na lu tax mu war koo rey mu ne nee na boromam moo ko sant Haajara ah. <laughs> ne ko ab yonent lu ko yàlla sant da koy def ndax warul warul topp bànneexu boppam ba mooy ndigalu su boromam hmm. yonent li ko yàlla sant rekk lay def mu xam ne échec na foofu mu ñëw ci Ismaïl doom ji ne ko yow ngay nekk xale nii nga rafetee âge bii nga toll sa papa da lay rey de mu ne ko ah man ni ma solali nii sam papa ana ban intérêt la am ci rey ma mu ne ah, nee na de yàlla moo ko sant mu ne ko sami'na yàlla daal bu fekkee moo ko sant. naa wax ji. dinaa ko topp. ndeysaan ñu ñoom ñaar Cheikh Talla. jëm ca barab ba nga xam ne fala ko yuntu yàlla ibrahim war a rey demee bay jege mu ne ko yaa bunayya yow sama doom ibrahima wax ak moom de mhm. inni ara fi lmanaami anni azbawuka fanzur maza tara yow sama doom man de dama doon nelaw génti gis di la rey démocratie tàmbalee foofu baatu démocratie bii ñuy wax. Mhm. foofu la tàmbalee. Mhm. léegi nag yow sama doom seetal ana lan mooy sa xalaat ci lii ma la wax. mbokk yi loolu bu ko bàyyi waxoon doom ci jamono bii. Mhm. kon doom ja day rayanteeg moom Cheikh Talla. waaye inni ara fil manami anni azbawuka ne ko fanzur maza tara xoolal nag lii ma la wax ana ban xalaat nga ci am. xoolal li ko doom ja tontu. gis nga Cheikh Talla mhm. doom day fonk way juram way juram yaa bati if'al ma tu'mar satajiduni insha allahu min as-sabirina yow sama baay jëfal liñ la digal mm. danga ma fekk ma bokk ci ñii muñ allahu akbar taa sabru kanzun la yafna muñ mbànd ma dut fees la xam naa bés dana ñëw danañ dugg mhm. ci te mu muñ mhm. waaye baay bi ko sant mu ne ko yow sama doom yow sama papa maa ngi lay xamal defal li la yàlla sant sa tajiduni insha allahu min asabirina mu ne ko da nga ma fekk ma bokk ci ñiy muñ mhm. te taala yàllaa ngay wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu istainu bi sabri wa salaat inna allaha maa sabirina yéen nit ñi yéen ñi gëm yàlla na ngeen dimbalikoo muñ ak julli ne yalax wax ja ne man maa ngi nekk ak ñii muñ man yàlla kon ku bëgg yàlla nekk ak yow del muñ foo toll mu ne ko kon defal li la yàlla sant mhm. mais Cheikh li gën doy waar ci mbir mi Ibrahima bi ñu yegsee sëñ Samba dañoo ñëw rek Ibrahima daal di tëral doom ñu mu ne ko papa Ismaïla wax de mhm. Ismaïla ne ko papa dama bëgg nga takk sama loxo yi mm-hmm. allahu akbar papa takkal sama loxo yi ngir soo demee ba may rendi papa ma bañ a féqu pour gaañ la kon day wàññi sama yool papa oh. allahu akbar mbokk yi xoolal doom ji wax lii bàyyi mbokk yi mm-hmm. ci baay boo xam ne dalaa bëgg rey bu doon jamono jii tey dañ naan sa baay bëggu la ah sa wujju yaay bee la gën a bëgg am na beneen doom Isaaqa ma nga fële dugg fee génn fii mbokk yi xam nga àdduna rek ak li fi taw te mbokk yi bàyyi muy yiif mooy kilifa kër mu ne ko papa takkal samay loxo damay bañ a féqu gaañ la mhm. papa na paaka bi ñaw ndax dee dafa métti mhm. papa soo tegee rek na gaaw booy teg sama boole ji dox gi rek papa na gaaw ndax sukkaraar si ndee dafa metti papa ji takk tànk yi takk loxo yi jël paaka bi teg ci boli gi mhm. paaka bi daggul paaka bi daggul mu ne papa dafa mel ni dangaa néew doole xaar ma jàpp ci benn côté bi dimbale la papa oh. jàpp ci côté bi papa ji dagg daggul mu ne waa paaka bi xanaa dafa ñëwul mu jël paaka boobu mu doon bëgg daggee aw yaram ndawal mu jël paaka bi dóor ko ci aw xeer xeer wi xar Ibrahima laaj mu ne waaw paaka boo xam ne dagg na aw xeer door ku xar ñaari parti ñu teg ko ci ndawal daggul paaka bi tontu ko laa bi ne ko yow Ibrahim hmm. yow naka nga bëggee ma dagg baat bi yow nee nga naa dagg man hmm. te ki moom paaka ki moom nee na ma bu ma dagg allahu akbar ndigal hmm. nit day topp ndigal même yi nekkul nit sax ñu ngi topp ndigal suñu borom naka nga bëggee ma dagg baat bii te ki ma moom nee na ma bu ma dagg hmm? mu dagg-dagg ba sonn daggul bi nga demee ba nga xam ne tegaat na paaka bi rek mu ne ko papa dafa mel ni yàlla daf ma jéppi tekkil loxo yi nga takk tekkil tànk yi nga takk ma tëdd tëdd goo xam ne damay wax yàlla ne nangu naa bul takk dara ci man bàyyi ma tëdd du ma wequ oh. su may dee du ma wequ Ibrahima def loolu mu dagg daggul bi mu defee loolu mu dagg daggul ci la laata muy def ci la Seydina Jibril dem aljanna seet xar ma fa gën baax hmm. xar ma nga xam ne fa tabaarakallaahu te meññanteem aljanna ma la nekk yàlla ne buy baat bi di dagg rekk ma dégradé la ci rangu malaaka yi yaay seen kilifa waaye dama lay dégradé mhm. jibril gaaw firi laaf yi ko yàlla dénk yépp daw ak vitesse bu gaaw dem aljanna jël xar ma ñëw xëcc ismail wuutal xar mi ci suufam mu ren di deret sotteeku mu xool sant yàlla ndax li mu rey du doomam ismail nekk ca gannaawam sant yàlla laa ilaaha illallaah ci yàlla. Ismaël di laaj mu ne papa maa yow kan moo gën a tabe mu ne ko maa la gën a tabe man ñi la jur ba pare di la rey. Mhm. mu ne ko déedéet papa man maa la gën a tabe. Mhm. man mi nga xam ne benn ruu rek laa am fas yéene nangu ndogalu yàlla li yàlla digal ci war koo nangu yow sax am nga beneen doom muy Isaaqa. Mhm. mi nga xam ne benn ruu laa am fas yéene koo joxe te yàlla tax. papa kon maa la tabe yàlla taxaw ne leen maa leen gën a tabe yéen ñaar ñëpp. <laughs> man mi leen teg ngeen mucc ma am lu ma leen wuutal. Mm-hmm. jox leen ko ngeen rey ko kon maa leen gën a tabe. Mm-hmm. kon xar moomu ñu rendi woon xar tey buñ ko rendi wutoon Cheikh Talla. Mm-hmm. man at mu jot danaa daw ay kilomètres yu bari ngir bañ sama baay rendi ma. est-ce que sama baay boobu rendi ma sax kon moom rendiwuñ wuñ ko woon bu yàgg ndax baayam mi fi woon. est-ce que kookee est-ce que mais yàlla ku man affaire la pour defar une société boo xam ne nii dañu indi waajoo xam ne moom la ñëpp di xaar muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu bàyyi fi ñëpp bi nga xamee ne def na loolu ñëw ba ci yonent bi mu doon sunna nag boo xam ne sunna bu yàlla dogal teg ko ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp. Mhm. képp ku ko man war na la. mais Cheikh Talla mbaa yëg nga ni. Hmm. tabaski ku ko mënul waru hmm. jarul sonn. tabaski. Hmm. te nag li gën a doy waar. mbaa yëg nga ne ngénti rek laa wax ngénti. bu amoon nga teg fii xaru tabaski. ngénte li am mbaa yëg nga ne tabaski day ñàkk ngénte lay doon euh, lañ rayal xar mi ki juddu. Hmm? waaw tey man am naa ngénte mais xar mii xaru tabaski la <laughs> dañ naan la xar mi nga denc pour tabaski. Hmm. ray ko pour ngénte li. Hmm. ray ko pour ngénte li. tabaski sunna la mais sunna bu dëgër la nag bu ñu feddali la. soo ko amee war na la amul damay jëndal paa bi xar. comme paa bi mi ngi fi paa bi lay jëndal xar moo war tabaski déedéet paa bi comme amu ko wàcc na ko mm-hmm. yow comme am nga ko yow la war mm-hmm. kon yow yaay tabaski kon tabaski képp ku ko man mm-hmm. na xam ne sabab bi mooy na am xar moo xam ne yàlla da ko wuutaloon ab xaritam ab soppeem yuntu yàlla Ibrahim mu rendi ko mooy daw waaye nag li tax sax ku ko amul warulaa métti. mooy Cheikh Talla yonent bi dafa toog ray ñaari xar benn tabaski. ñaari xaaf yu baax. bi mu ñaari xar yi mu ne xar mii man ak sama njaboot gi ma jur xar mi ci des man ak képp ku bokk ci sama xeet wi ba baa bés pënc taxaw ku amul tabaski yóbbaale naa la géew. laa ilaaha illallaah googu moo gën a baax xam nga suñu rey gi ah, léegi. ah wallaahi ndeysaan ñun xam nga rey ak rendi bokkatul bokkuñu déedéet kuy jullit da ngay rendi mais koo xam ne da ngay da ngay am nooy defee rek da ngay rey mhm. parce que booy rendi dafa am ay charte yu ci aju wér na kon nga xam ne charte la mhm. tabaski daal ci gàttal mhm. na la waaye na la boo xam ne suñ ne bu nu feddali la boo xam ne képp ku ko man war na la mais ku ko mënul wàcc na la beneen bi ci desit bul ne man ñaari jabar wala ñetti jabar laa am damay jëndal jabar ji xar jëndal jabar ji mhm. ne damay tabaski tey aaw bi aye mhm. suba ñaareel bi aye de ëpp naa def mhm. ëpp naa def yow ni ngay def mooy da ngay jënd kon benn xar xar boo xam ne da ngay yóbbaale ñoom ñaar ñëpp géew waaye doo jënd fii parce que kon tabaski woo sa aaw moo tabaski ak sa ñaareel te yow daf laa war parce que ki jëndal aaw jëndal ñaareel kon mënoon naa jëndal boppa kon boo jëndalee aaw bi na tey aaw bee tabaski nga ne suba bi tabaski ñaareel bi la kon yow tabaski yow daf laa war kon ni mu waree ñii donc loolu it nañ ko bàyyi xel ci tabaski. Mhm. loolu nañ bàyyi xel it. Mhm. ne paa bi laay jëndal xar. Mhm. man jarul may jënd xar na paa bi yóbbaale ñëpp. ëpp naa wax ëpp naa def. ni mu waree paa bi la la waree mi ngi mel ne aj màkka rek. tey nga bëgg aji màkka naan xaaral comme am na billet bi naa ko jox paa bi déedéet bu def yow yow la njëkk a war majeur nga. vacciné demal nga aji màkka su beneen ñëwee nga jox paa bi ne ko demal. akay loolu mooy mbir mi mais loo xam ne farata la ceew di farata ci paa bi hmm. nga bëgg jox paa bi yow nga ne farata bii naa ko bàyyi te yàlla sant la ko sant ko paa hmm. léegi demal nga defi bu beneen ñëwee nga jox paa bi na ko demal bu beneen ñëwee nga jox maire bi su fekkee wér nga hmm. te alal ji lew jógee fu lew nga wér ñu xoolal la man ngaa dem demal wuy ji woote yàlla bi kon Cheikh la ci gàttal tabaski daal sunna la boo xam ne képp ku ko man war na la waaye képp ku ko mënul rek wàcc na la macha allah jërëjëf yaa oustaz Babacar Ndiaye ci leeral bu am solo bi ndax nee naa oustaz yi bëri nañu dañuy toog di ci waxtaan ci tele yeeg rajo yeeg fenn fu ci ne mais pédagogie bi ñu ci war a leeral mooy comme ni nga ko leeralee ñu xam dëgg-dëgg kan la tabaski war kan la warut lan mooy sunna bi lan mooy farata bi te wax nga ko sunna la boo xamante ni bu ñu rafetal la bu yàgg la boo xamante ni kon rafetal ko dafa am solo te waree teef gi mooy képp koo xamante ni mën nga ko suñu borom mën loolu la ko war na la wallaahi ku ko mënut wàcc na wàcc na la kon daa mel ni oustaz bu ñu la déggee bu baax a baax tabaski moom leeral nga ci mbooleem lu ci waroon na leer leer nga ko rek fi ma ci bëgg a rebondir tuuti rek mm-hmm. mais gannaaw digle suñu borom la woon. Mhm. jaarale ko ci benn yonent mu yonent Ibrahima alayhi salaatu wa salaam. Mhm. est que bu ñuy xool ci jamono yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam amul benn. xew xew xew bu mu dajeeloon wala yu mel noonu ba tax ñu gën koo sax doon doon gën koo recommander. fi xam nga yàlla. Mhm. am na benn soraat bu mu wàcce. yàlla di wax ni. aoudu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم dégg yàlla est-ce que xam nga ne Cheikh Talla alquran mooy wax bi gën a neex ki wax yi. wallaahi lazim. damay dem fan yee benn dëj Cheikh Talla bala ma ñëw. dëj bi gars yi toog di wax di coow di coow di fekk ñun ñu ngi wàcce kaamin. Mhm. man leen moo ne day yéen li ngeen di wax li ñu wax moo ko gën a neex. fuuf ma ne tey ngeen bàyyi xel wax ji. Mhm. ndax ku fi jógee da nga bëgg ku la jàngal alquran. ma ne ñuy caaxaan sax ku ci génnoon àdduna tey même bu fekkee musique la ak lu mu mën ci doon. Mm. man waxuma dugguma ci xaraam ak ñàkk xaraam mais dama ne. Mm-hmm. même ku koy def sax soo ko laajoon ne ko. Mm-hmm. ndax soo dee sa bëju bésu dëj bëgg nga ñu tegal la chaîne en musique di la musical def naan moog nañ ma jàngal alquran. wallaahi taala alquran laysa yuran ala ka misli kenn du gis lu mel ni moom ci kaw suuf ku bëgg jege yàlla del jàng alquran yaa man yuridu alxurba min mawlaahu fal yaqra alquran la yansa ku bëgg jege sa borom mu ne jàngal alquran te bu ko fàtte ndax alquran mooy balance bi inna alqurana huwa almisaanu mooy balance bi nga xam ne ku bëgg xam noo toll ci yàlla rek xoolal ni nga toll ci alquran Cheikh Talla Moustapha dafa toog. moom yonent yàlla Muhammad. toog bés toog rek xëy war a julli ci tabaski. yàlla doomam ji nga xam ne doomam yëpp mboolem juróom-ñaari doom yu mu am juróom benn yëpp Khadija leen jur. Khadija moo jur Zeynab. Mm-hmm. Khadija moo jur Fatima. Mm-hmm. Khadija moo jur di mm-hmm. Khadija moo jur Umu Kalsoom. Khadija moo jur Abdullahi. xadiija moo jur xaasim kenn rek lu jurut mooy ibrahim ibrahima ku ko jur mooy mariyatu mariyatu moomu jur ko xam ne benn boobu la am mm-hmm. juróom benn yëpp xadiija moo leen jur awlaadahu xaraju minha siwal badri ibrahima ku dul ibrahima rek xadiija la jur xëy bés tabaski ah ibrahima xëy rek ndeysaan defar ko mu doon xale ndaw rek tabaski jot Moustapha di ko xaar Moustapha jël Ibrahima teg ca dënd ba rek yàlla rocc roo ci gàttal. Mm-hmm. loolu méttiwul mu dem terewu kaa dem ca jàkk ja dem ku ñuy wax ah As ibnu Wail daal di fekk yonent muy waxtaan mu ne yéen kii ngeen di déglu kii nga xam ne yàllaam ji muy wax rey na doomam yépp fekk yàlla xamal ne ko ne ko kii bu màggoon ab yonent lay doon te yonent dootul ñëw sa ginnaaw yow yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla daal di xulóog mu ne ndax dangeen di déglu zalikal abtar da ngeen di déglu kii nga xam ne ab abtar la mhm. kii nga xam ne yàllaam ji muy woote rey na ñëppam te nee na moom la gën a bëgg mhm. yàlla wàcc na ko inna aataynaka al kawsar ñun yàlla jox nañ la déeg bu nu tuddee kawsara mhm. dex ku ñu tuddee kaw kawsara goo xam ne ku ci naan doota mar sallallahu alayhi yàlla ne ko fa salli li rabbika jarul déglu demal nga julli ji wan xar tangaloon sa tabaski xam nga xar la rey tabaski moo gën a yàlla xar mu góor xaaf mu baax moo xam ne amul benn sikk gémmiñ ga normal na ngeen bëgg a tullu tolloog tey. Mhm. trois quarts mhm. euh, un tiers. bët ba patul. Mhm. gémmiñ nga xeeñul. ma nga am wér amul benn blessure. boo xam ne bu koy sonal la nekkul di soox. xar mu mel noonu lañ soxla ci tabaski. xar mu baax xaaf mu baax moo xam ne. nam war a toll toll na ko waxuñu nag xaafi léegi xaafi puukare <laughs> yi léegi da ngay gis koo xam ne day jënd ponkalam xar million wala deux million wala ngay gis koy yar am xar ne ma ne diw laa koy jaayi parce que xam ne ne diw moomu puukare kat la te te li ci gën a doy ci buntu kër gi lañ ko yeew mbokk yaa ngi dendek sa kër googunte jaamu yàlla boo xam ne amul xar njabootam gi di xool sa xar mi mbokk mm-hmm. te jëndaloo ko am xar doom yi di xaar toujours ne seen pappa dana indi xar. yow yàlla man loola ko defoo ko ci sutura wala nga jënd ko ñaar jox ko benn jël benn waaye nga jënd ponkalum xar joxoo ko dara doom yi di romb say doom naan ñële suñu papa am na xar mu rëy ñoom ñuy xalaat na seen papa dafa néew doole. réew mi nañ bay xel loolu. Mm-hmm. jëf ju doy waar a ngi noonu. yàlla ne ko demal nga julli ji te nga rey sam xar. ñoom ñooñu di la wax. Mm-hmm. moom moomu di la wax wax ji yëgal na mooy ku doy waar Ibrahima mii doomam ci la génn àdduna. Mm-hmm. kon xew-xew boobu am na ci. Mm-hmm. nga xam ne kon bés bu metti la. kon tabaski it tombeeg mu doon bés boo xam ne yunt yàlla Muhammad ñàkk na ci njabootam. ñàkk na ci njabootam kon loolu mooy xew-xew bi nga xam ne. amoon na ci ci jamono yonent yàlla Muhammad waaye ma rebondiraat ci lee rek mm. na ngeen bàyyi xel ne yonent bi daal rayoon na ñaari xar ci bésu tabaski bi mm. benn pour moom mm. benn pour xeetam yëpp ba baa yowmal qiyaam ba baa bés penc taxaw tabaski feeg mi nga am ku amul yégal na Moustapha yóbbaal na rek alayhi salaatu wasalaam ko sama borom fayal te amiin yaa mu doon lu am solo macha allah te defe naa leeral bi mucc naa yëpp lool waaye ñu njëkkanteeg waxtu bi rek da nga tudd léegi jëm ci aju màkka mm. oustaz kan moo war a aji màkka ak ban alal lañu war a aji ji màkk mm-hmm. ak lan mooy sunna yi ak lan mooy farata yi ndax coowal aj màkk dafa bari lool ci réew mi waaw kay natt yaa ngi fi pour aj màkk ah. tontine yaa ngi fi ah. jënd billet mayee ko mi ngi fi waaye loterie sax am na ci ah. léegi loolu li ma ci wax bi nga mujj wax rek lay wax mm-hmm. loterie benn billet loterie mën naa dagan mm-hmm. ci kaw ci benn côté ci benn ci kaw lan hmm. société bi benn billet màkk moo fi am hmm. te ki ko moom buggul jox kenn ki ci des gis boppam hmm. xam nga tey bu fekkee ñun ñëpp doo ko dañ ko bokk tey te ñun ñëpp ànduñu ci ne nañ jox Cheikh Talla pour mu dem ñu ne la kon loterie leen ko ku génn ñoo xam ne change am la moom la yàlla. diggante man yow ak Samba ak Moustapha. waaw man yow Samba Hadj Moustapha. sëriñ bu baax boobu. bari xam-xam lool tañ bari koo bàyyi xel. macha allah sëriñ Moustapha Dieye. Mm-hmm. ak ka mën a jàngale. ndeysaan na ko ñëpp bàyyi xel. Mm-hmm. am jàngaleem. wallaay ndeysaan Sénégal. Mm-hmm. ñi wax bari nañ de. waaye ñi wax li am njëriñ. ak a néew. <laughs> li ma dugal foofu tax ma wax. tubarkàlla macha man mënta ñàkk. da mujj baax ñu noonu xaj ma sax yàlla ko yàlla fay. wa ma shayibna illa bi ma alimna illa bi nit du seede lu dul lu mu xam. wallaay lazim gis nga. bi nga xamee ne ak màkka ma ne mën nañ koo lu tëri ci kaw benn fi am te ñu bëree ko bokk te mënuñu koo jox kenn bàyyi mënuñu koo jox kenn bàyyi ki ci des manees na koo loterie du loterie carte waaye loterie kenn ku ci ne gis sa bopp que mën ngaa génn booba ku génn rek dañoo xam ne yow la yàlla woo ma ne yow la yàlla woo nga dem mm-hmm. tontine yi ñuy def tontine yaakaar na mooy natt. mooy natt wala du natt yi. mooy natt natt yu ñuy def. Mm-hmm. su fekkee ne dañuy natt ñu ne suñu nattee ba noppi bu fekkee nattu ak màkka la. Mm-hmm. te ñoom ñëpp danañ respecté natt bi. Mm-hmm. ñu ne déwén xaj Moustapha mooy dem. ñëpp natt xaalis boobunte kenn ku ci ne ni ko amee mu lew doom. kenn du laaj nit sax ne ko nag. wax dëgg yàlla sa xaalis foo ko jëlee dëgg dëgg da ngay njort njort bu rafet mm-hmm. ndax yàllaa ne bu leen njort njort bu ñaaw njort yi ñaaw yi na ngeen ko moytu mm-hmm. ñu ne Moustapha mooy dem déwén ñëpp respecté ko ñu ne bii Cheikh Talla mooy dem mm-hmm. bi ci topp ñu ne sëñ sàmma mooy dem bi ci topp ñu ne man maay dem ah loolu garaawul su fekkee ñu ko seq ñëpp ay gor lañu bu fekkee ne nag yow dañuy joxe man tey am na yu bari yoo xam ne dafa am lu may joxe kii am lu mu joxe kii am lu mu joxe léegi nag mën naa yem ren ñu ne léegi dañ dañ dañ koy def tirage rek mhm. léegi ku dem ñu xam ne yaa dem après jeex na nag su boobaa loolu carte la moom. Mhm. sa dañuy def mbooloo mi daje kenn ku ne jël alalam yaakaar ñu tiré génn kenn léegi après affaire boobu jeex na doonu loo xam ne luy continuer la. continuer la loolu kon fi mu toll nii man mi amoon yaakaar. sama yaakaar tas keneen am yaakaar yaakaaram tas ñu jox ko kenn rek mu yóbbu mhm. jël alal jooju def ko tubay paate mu yem ci moom képp mhm. ëpp naa def de ëpp naa def ak màkk nag yàlla def ne mhm. man istataa ilayhi sabila ku ko mën am alal ju lew alal joo xam ne bàyyiwoo fi benn bor sa dépense su kër joxe nga lépp diirub li ngay nekk makk wér nga wér gu yaram gu mat sëkk docteur yi la war a xool saytu nañu saw yaram ba xam ne wér nga. Mhm. def nga visite médical def yëpp nga apte pour dem màkka kooku mooy ki war a dem màkka. Mhm. su fekkee alal ji nga am nag amin wi nga ko amee lewul danga nga koo sàcc wala sàngara nga doon jaay ci suñu diine. Mhm. wala eh, leneen nga doon jaay loo xam ne suñu diine da ko xaraamal. xaalis boobu nga dajale ko bëgg ca aj màkka ajoo màkk ndax xaalis bii de màkk xaalis bu leew lay doon xaalis bu laab mbaa yëg nga ne mbir mën naa laab te xaraam waaw mbir mën naa sell te du dagan mbir mën naa dagan te du sell xam nga lu ko indi Cheikh Talla ceeb dagan na ceeb waaw. ah jot naa ko de xanaa. ah si jot naa añee woo ko léegi. ah kay moo tax ma jot ko kay. Cheikh Samba ceeb dagan na añee nga ko léegi. <laughs> waa waaw ce que boo demee ca boutique naar bële yenub saako indi. Hmm. te fayoo borom. Hmm. ceeb dagan na. daganul waaye amin bu baaxul. ba baaxul wallaay. ndax fayoo. ceeb lu dagan na. Hmm. li nga jël lu dagan la. mais fi ni ko jëlee. ni nga ko jëlee daganul. jëlin wa. waaw daganul. waa léegi liggéey ba weer wi dee ñu fay la salaire. Hmm. xaalis boobu lew na. lew na la doomu. waa léegi su fekkee da ngaa dem ca baar ba. Hmm. commandé xeetu sàngara yooyu may dégg nit ñu du ay sac dajal <laughs> ak ay vodka. ay xeet yooyu may dégg dégg rek laa ci am nañ mbokk yi. da ngeen ko bàyyi xel de waaw dégg rek laa ci am de. damay bañ ñu ne day day tabaarkalla de. waaw waaw pédagogie bi la rek pédagogie bi la rek. <laughs> ok fa tabaarkalla <laughs> waa léegi nga liggéey ba mu baax. Mm-hmm. nga dem ca baar ba jënd tabaarakallaahu sàngara naan amin bi dagan na waaye fi nga ko versé baaxul ndeysaan li nga ko jëfandikoo moo baaxul moo tax lépp luy nit di def ngir bëgg yàlla dugal ci loxoom amin bi na sell fa koy defit na sell ndax mbaa yëg nga ne siraat doo fa jéggi lu dul yàlla laaj na la bépp dërëm boo am nan nga ko amee ak bi nga ko amee fan nga ko dugal moo tax yonent bi ne yontu yàlla Souleymane mooy mujjee dugg aljanna ñu ne ko lu tax parce que alalam ju bari gi ak nguuram gu yaatu woon nga lépp yàlla dina ko laaj pièce par pièce moo tax mu sabaan danañ dugg ba am juróomi téeméeri at yontu yàlla Souleymane doogu dugg. laa ilaaha illallaah laa akbar moo tax alal noppale na noppalewul. kon yonent yàlla Souleymane moom ca taar baag yi yëpp moom da cee boole. ak nguuram gu rëy ga. ga. daan communiqué ak jinne yi hmm. yàlla jox ko ngelaw daan communiqué ak njanaaw yi daan communiqué ak xorondom bi hmm. lu ne muy communiqué ak ñoom waaye nguur ga la muy rëy rëy rëy rëy hmm. ah, billaay ëllëg dana bokk ci ñi mujj dugg aljanna ci yonent yi Moustapha ko wax ndax alal boo am da nga lijjanti foo ko jëlee ak foo ko dépensé bala ngaa jéggi siraat sa tànk ndeyjoor du fekki tànk ca muy mukk te laajuñ la alal ji nga amoon fan nga ko jëlee bi nga ko amee ba noppi fan nga ko dépensé taala moo tax alal yi ñu am oh. nañ ciy liggéeyal yàlla mm-hmm. damay dellu soir rek waxaat ci mm-hmm. ku mel ni sëñ Moussa nag mm-hmm. lu mu am mu néew mu bari mën na ko bokk ak jaamu yàlla yi moo tax Sénégal na ko bàyyi xel sëriñ Moussa jéey delen ko bàyyi xel macha allah kon loolu rek kon ki ko am te man ko te amin bi sell mooy dem màkka macha allah te taala li gën a yéeme mooy ne sooy dem màkka def escale Madina waaja tëdd Madina tul mu nawara borom raw do or ba sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu ump kenn yàlla na fa ñëpp dem xaritu cheikhul qadim boobunte xaritu cheikhul haj malik boobunte xaritu maam cheikh abdoulaye ñas boobu xaritu tabarakallahu maam amari ndaak sekk ak mboolem mag ñi nekk ci réew mi ñëpp yonent bi moo nekkoon seen xarit sëriñ tubaa gis nga ba muy woy mhm. yonent bi yaa ngi dégg mu naan fala taqisu bnu abdullahi bil fudala mhm. ndax idal kawakiba yuq fiha sinimaaru dem ba ci biir raamal wara nayla fadlin musra inda lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraar wa sallam nee na nga ne li ngay wuti fu mënti doon nekk fa hmm. nga ne la ca borom rawdu or ba ci madinatul munawwara sallallahu alayhi wa sallam kon daal Cheikh Talla ci gàttal Makka daal ku hmm. fay dem alal ji na lew na sell nga wér hmm. mën a dem mën a dem ku ko man daal mhm. la yàlla wax boo fa demee nag mhm. bu fa wax wax ju amul njëriñ mhm. bu fa tooñ kenn bu fa njaaloo bu fa def dara soo bëggee yàlla nangul la loolu daal mooy li nga xam moo ci nekk macha jërëjëf yaa oustaz Babacar Ndiaye ci waxtaan wu am solo bi xam naa ni waxtu waa ngi xëccu jëm ci jeex te sa jot bëriwut ah, ah bon léegi laa commencé moom kay tubaarkàlla man loolu ma bëgg a jaaxal alhamdulilah mi ngi door a tàmbalee bëgg a tàng man de ma yaakaar ne waxu ma dara waxtu fi mu ne oustaz te ah loolu day na waa. kon ñu indi benn question rek boo xam ne mënta ñàkk dugal ko actualité ndax gannaaw actualité tam dañoo ne ci réew mi. alhamdulilah incha allah macha allah ñu gis ni jamono bi yow saa fitna gi bëri na ci biir réew mi. ah ah. xiiroo beeg ñaayo bi bëri na. ah rey gi bëri na. faatu gi bëri na. ndax defe naa ne rey ak faatu bokkuñu. déedéet. danañ ci indi débat. ak ñoo wute dinañ ci indi débat danañ ca ñëw. waaye dama jàpp ni fitna gi. lan la diine wax ci ki yee fitna. ndax jamono bi ñu toll dafa dañoo dafa mel ni man sama sama gis-gis bu gàtt sama jàngat bu gàtt dafa am ñu ne ci réew mi ñu leen di wooye ay leader oh. te gisuma dara lu ñu dox lu dul yee na ci biir réew mi waaw ndax xam ne woote boo xam ne bu mu woote bu ne ah. mooy jóg leen ñu xeexi ki naan jóg leen ñu xeexi mi ngi yee fitna chata la bàkke allahu akbar mais tu sais mhm. tey lii la ñëpp war di waxtaani mooy actualité bi yàlla dafa wax ci alquran ne. Mhm. yàllaay wax ci alquran. Mhm. moom suñu borom. ne na ngeen ragal fitna. yàlla ne nangeen ngeen ragal fitna ndax fitna fi ngay bëgg mu yem fa du fa yem. ay lu yem ci bopp borom. yàllaay wax. <laughs> ndeysaan. wattaqu fitnatan. Mhm. waaye mbokk yi ragal leen fitna. mu ne ndax fitna du yem ci ki ko yee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fitna mi ngi nelaw yonent bi ne fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na képp ku ko yee te bokk yi ay nit bu ñu bokkee nekk ci benn société damay wax ne bokk tey société damay wax ne ñu ko dëkk ñëpp tey taala ñoo bokk tey su fekkee ne ay idéologie yi ngeen wuutee ci seen biir ay xalaatin yu ngeen wuutee ci seen biir te am ñu ngeen jiite te man mi wuuteeg yow fi nga toog laa soxla te li ma bëgg pour jël ko yàllaa ma koy jox su ma xamee loolu war naa mën a noppalu tey wax lu rafet di jëf lu rafet ndax bu ma ko jotee ma jot ko ci jotin bu rafet te kenn du ma sikk te ki ma ko nangu ci moom du ma sikk te yàlla mooy joxe nguur ah. Mm-hmm. qul allahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika al-khayr innaka 'ala kulli shay'in qadir mm-hmm. tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayyi wa tarzuqu man tasha'u bi ghayri hisab. Ah. Sadaqallahu al-'azim. yàlla ne nguur maa koy moom. Mm-hmm. maa ko moom mm, maa koy jox ku ma neex mm-hmm. waxul maa koy jëlaat de daf na su jotee maa koy foqati joxaat keneen kon jarul ñaawal déedéet da ngaa yaakaar na Macky moo fi teg bopp déedéet bu réew mépp àndoon mm. na Macky du toog yàlla na day toog mais kenn séentu wu ko woon 2012 de wallaahi lazim Ablaye Wade moo yoroon doole mm-hmm. yor alal. Mhm. yor armée yor lépp mais yàlla ne ko jeexal nga kii ay toog. su waree jeexal loolu la yàlla defaat tegaat keneen xaw ma kan la. kon wutin wi na rafet jarul yee fitna mbokk yi nañ moytu fitna. Mhm. ndax ki ci dee xamoo kan la sa doom la sa jabar la sa yaay la sa kan la. Mhm. mbokk yi lépp yaa ko sooxe. du ma tudd nag turu kenn Sénégal nag. wax boo fi wax ñu ne diw lay wax. waxuma kenn damay wax li yàlla wax. yàlla ne nangeen moytu fitna mm-hmm. fitna xay du yem ci bopp borom na ngeen moytu di wut wutin woo xam ne wutin wu ñaaw la mm-hmm. réew mi nañ bëgg jàmm mm-hmm. iblis toog ne bés sax bëgg wut jàmm ak yàlla moom jàmm la bëggoon ndax sëñ Tuubaa kat nee na woon Seex mhm. Taala mhm. jàmm de gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fa ñu jëm te kenn du ci doyal te kenn du ci doyal <laughs> doyal amul kenn du ci doyal Iblis dafa toog wax ak yonent yàlla Moussa mhm. alayhi salaatu ne ko Moussa sama diggante yàlla coow li bëri na te mi ngi bëgg yàgg te sa gaañi fi jaar kenn waxu ko ci pour jubale mag jubale kook man te bëgg naa jubóog yàlla Iblis ay wax kat. ndeysaan jàmm rek laa bëgg. waaye demal nga wax ak moom ñu jubóo. te <laughs> Moussa fexe ba communiquer ak yàlla. ne ko yàlla sa waa ñëw na ci mën a. Ah. Mm-hmm. Iblis nee na jàmm rek la bëgg juboo yow la bëgg yàlla ne ko amul problème man maay jàmm. wallaay maay jàmm. man maay jàmm nee ko la ma ko santoon démb pour mu sujjootal Adama Adama nga fële na dem sujjootal mu ne ko eh, duñ juboo <laughs> bi Moussa ñëwaatee wax ko. Iblis daf ne ko loolu laa doon bañ ba muy dund kon du dem bay dee ma koy sujjóot te ne yàlla bëggul ñu juboo waaye xam na ne jàmm moo gën lépp lu mënti doon Iblis bii Moussa dem mu ne ko kaay ma baaxee la dara mu ne ko naa la baaxee ay mbir hmm. mu ne ko na nga moytu di wéet jigéen hmm. dama fay fiir te sama fiir li mu fay échec te jàpp dara yombul wéet ak moytu jóg di xeex jëm ci yoonu yàlla am ku la wax rek nga gesu mbaa yëg nga ni sama benn kilifa moo ma doon wax ni sataala kuy jóg jëm ci yàlla bu fekkee ku la xuri rek nga wakk wakk nga xuri ko hmm, doo gaaw a yegg lu leer doo gaaw a yegg mukk parce que bu fekkee dem nga ba sori sëñ Samba mii na ma xureet <laughs> mais damay def demi tour fayu mbaa danaa gaaw a yegg damay commencé war seer amaan na mën ngaa kon mbokk yi nañ leen moytu fitna réew mi jàmm moo fi xaj wallaahi ndeysaan réew mu sëriñ Touba tëdd. Hmm. Cheikh El Hadj Malick tëdd. Mawlana Cheikh Ibrahim. Seydina Limamou. maam Amary Ndack Seck. ñoom ñoo ñëpp magi réew mi ñu baax ñoo ñëpp. Hmm. alxaaji Rawaan Ngom Paal. Hmm. mu baax moomu. mu xaddamu Cheikh El Hadj Malick bu baax boobu te. maami Hadj Moustapha mu baax moomu. yàlla yàlla yokk seen i leer. allahumma amiin yaa rabbal nga xam ne tey réew mi li waroon def culture. bu ñu waroon inculquer suñuy njaboot. mooy fexe ba jàmm am ci réew mi. kon Cheikh Talla yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal nañu yàlla musal ci ñi yee fitna ci réew mi mm-hmm. nawet la ñu dugg nawet bi yàlla na ci yàlla def xéewal ci barke yonent bi kon daal taala yee fitna baaxul mm-hmm. yee fitna baaxul macha allah alhamdulilah jërëjëf yaa oustaz xam naa ni waxtu wi xëcc na jéem ci jeex te wax dëgg li ñu naaloon lépp ëpp na lii waaye suñ ne waxtaan wi neex na neex goo xamante ni amaana mi ngi mel ni ñi ngi door a tàmbali wax dëgg yàlla fi yaram yi war a tàngee fa la yëf yi daal di mu daal di doon loo xamante wax dëgg di ñëw am na yoo xam ne nas nañ ko bëgg cee waxtaane waat incha allah bu soobee yàlla waaye daal bokk na ci li nga xamante ni mooy baatu maanu maanu maanu dañu dégg ñu naan nit dafa war a maanu baatu maanu ba tey dafa mel ni nit ñi xamuñu lan mooy maanu mais Cheikh Talla nit ñi xamuñu ko xam nga maandu mooy lan taala mhm. lépp lu sa yoon nekkul bu ci wax bu ci def lépp lu sa yoon nekkul liñ la boolewul lu yonent bi wax min xusni islaamil marh tarkuhu ma la yaani nit ki gën a rafet lislaam ci kaw suuf mooy koo xam ne lu sa yoon nekkul bu ci wax bu ci jëf bu ci wax oustaz boo toogoon sa doom ne ci mbir fi mu toll nii daanaka te boole wala ci waroo cee def waroo cee wax ah, kay ah kay. loolu mooy rendre ko service parce que kooku yaay kilifaam kooku yaay kilifaam ci yaw la ko yàlla jaarale kilifteef gi yow la war noppi ci li muy def wala nga noppi ci geneen dëgg ko war a wax keneen te war ko ko wax ak waxin bu rafet nag. yeneen bi nee na ku noppi ci dëgg. Mm. goo war a wax nag la wax. goo war a wax dëgg goo war a wax dëgg goo war a wax. xam nga am na dëgg goo xam ne boo ko waxee fitna yeewu ci réew wallaay am na dëgg yoo xam ne gars yi ñu ngi koy wax mais fitna lay mujjee mhm. da war a noppi waroo koo wax parce que fitna bi mi nar a yee moo tax mhm. yonent bi nee na woon assaakitu anil xaq cheytaanul aqras ku noppi ci dëgg cheytaane mhm. bu luu nga maan lu ko luu mooy ku munul wax kon seytaane kon seytaane nga mais munoo wax yàlla mosal loolu baaxul. Cheikh Talla sa doom nag moom sa njaboot la. kon danga koy rendre service ci di ko wax ne ko lii la ak lii la ak lii la kon loolu mooy li nga xam ne mooy li ci am waaye maandu nag nit ñi xamuñ ko. yonent bi moom la njëkk a jàngale ci ak dundam. mooy ba muy nàmp ñaari weñ ya suway ba ma ko doon nàmpal gis nga am na euh, euh, ku doon nàmp ca wet ga. beneen ween ba bi mu ñëwee dañ koo jox weenoo mu lànk maa qaalahu awalan fallahu akbaru lahuma rafiqa bi nasbin aaxiru alkalimi lahu bada fi ibtidaai l amri maadilatun lillahi adlun bada fi taalika al umami Moustapha lim njëkk a jàngale ca dundam mooy maandu dafa maandu ba nit day wax lu yoonam nekk nit day wax wala mu jëf. Mhm. loo xam ne yoona ma nga ca. loolu mhm. sa yoon nekkul bu ca dugg. Mhm. ndax boo ca duggee loola ca fekk yaa ko teg sa bopp. man nga wax nag d'une manière générale li yàlla wax waaye bul index indexé kenn. xam nga am na ñoo xam ne dañuy dàq ginaar waxaale soxla. waxaale soxla te dafa bëri léegi ci réew mi. te loolu lu doy waar. lu jar a moytoo ngi noonu te. utiliser xam-xam bi la yàlla jox. nga bëgg ko waxaale dàq ginaar. pour dal ci kaw oustaz bële. parce que arme nga def yow li la yàlla xam loo defoo ko ngir jaamoo ko yàlla kon nit ñi nañu maandu ci doomu aadama yi jëf ju mënti doon joo gis nit jëf soo xamul àtte ba rek maandu ca kon daal taala mm-hmm. danañ ko gën a yaatal waaye daal yonent bi mm-hmm. jàngale na ne ñëpp ne nit ñi di maandu mm-hmm. ci jëf ju mën ci doon alayhi salaatu a jërëjëf yaa sa Babacar Ndiaye ci waxtaan wu am solo bi bokk na tam ci leeral yi waaye itam nee naa ci pédagogie bi bokk na ci daal xam naa ni eh, fi nga xamante ni moom fi ne mooy eh, laaj la tey ji lan ngay jox askan wi yóbbal goo xam dinañ ko mën a gànnaayoo ba fi yekk ayu bés bii di ñëwaat ñu war dajewaat insha allahu rabbi ci moo xam ci ñaan ci moo xam ci turu yàlla moo lu mu ci mën a doon rek nga xam ne yóbbal lay daal Euh, ñu daal di koy yëkkatee jotaay bi tey macha allah rabbi waaw li may wax ñëpp rek. Mm-hmm. te di ko jeexalee mooy ne. Mm-hmm. réew mi nañ bokk bëgg jàmm. Mm-hmm. gis nga yii ñuy sooxee nii. di ko ruumandaat di ko defantu benn benn. bis ngi ñëw boo xam ne bu ci nit ñi jógul. Mm. dana yegg foo xam ne. li xew ci réew yi nga xam ne suñuy voisins lañu. Mm-hmm. dana am ci réew mi. te loolee lépp li koy waral mooy ne jamono bi ñëpp waree wax. Mm-hmm. waxuñu ci. Mm-hmm. te am na yoo xam ne nit ñaa ngi koy jëf te du dëgg nag moom kay par parloo rek mooy am nga bañ caa wax. ragal wala nga am fit wax ci ngir yàlla moo la sant nga wax. waaye li may sant ñëpp. te di leen ko wax. mooy li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santoon. Cheikh mbaa yëg nga ne képp ku xëy. wax baat bi ñett yoon. su ngoonee nga wax baat yi ñetti yoon. mbaa yëg nga ne lu ñëw da ci mucc. boobu mooy ban baat. Moussa ko wax de. mooy bismillah illadi. laa yaduru maa ismihi shay'un fi ard. Mhm. wala fi samaai wa huwa samiihu l xanaa lii gàtt na. wallaay lool. bismillahi alladi laa yadurru maa asmihi shay'un fi l ard. wala fi samaai wa huwa samiiul aliim. Moustapha nee na ku xëy wax ko ñett su ngoonee waxal ñett. Mhm. lu mënti doon yow da nga ci mucc. alhamdulilah kon kii maa leen jox loolu. macha allah yow mu doon loo xam ne na ko ñëpp bàyyi xel. yóbbal bi incha allah <laughs> yeneen yoon it. Mhm. muy gën a avancé rek. incha allah xel rek. Mhm. kenn daal. Mhm. noonu rek lañ koy doxee incha allahu taala kon loolu moo doon tàggatoo bi. di wax eh, yàlla na ñëpp am jàmm. yàlla na yàlla dolli sutura ñëpp. tubaarakallaahu di sant techniciens yi. ndeysaan ñoom Cheikh Talla. ñoom Cheikh Samba. yàlla na yàlla fayal nu leen. ndax yéen a nekk ci. tey technique bi. ba tax tey. message yi ñu bëgg jàllale ñu mën ko jàllale pour Sénégal pour adduna bi ñëpp jot ci daal te dëgg dëgg nag ah ñëpp war koo gën bàyyi xel kon su ngeen ñu joxee opportunité boobu nag vraiment ñu ngi leen di sant waaye di sant it Serigne Moustapha Dieye yal na yàlla gën ko sàmm taar ko sant Sénégal gépp sant kilifa diine yëpp tabaarkalla yàlla na fi ñëpp yàgg te wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yaa Oustaz Babacar Ndiaye ci waxtaan wu am solo bi macha allah ci pédagogie bi macha allah waaye tam ci xam-xam bi. yal na yàlla taxaw. amiin yàlla fay. amiin yal na yàlla sàmm. amiin yal yàlla aar yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay. amiin yaa rabbal yéene yi bëgg yi ak mébét itam sama borom daal di jàpp jàppandal lépp sa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin barkeb euh, weeram weeram yu sell yi nga xamante ni dëgg ma yàlla bisam yu baax yi nga xamante ni mboolem bisam yi baax na waaye am na ay xam ne ay tànneefu boppam la ndax moo a mu di ci xewal yam cay xew macha allah waaye di sant tam bu baax a baax mboolem équipe technique bi waaye mboolem internautes yi nga xamante ni ñi ngi suivre télé bii mm. ñu bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu mag ñu ndaw mm. ndax nee naa kii wax ki koy déglu mooy mbokkam ah. waaye kii feeñ itam ki koy sitaan mooy mbokkam ah. kon ñoom it ñoo leen di ñaanal kenn ku ci nekk lay bëgg mag yéeneem ak bébétam yal na yàlla sama borom mi dul jeexal dara jàpp ndal lépp ci dara amiin amiin yaa rabbal di leen wax rek am na ñaari question yoo xamante ni moom bokk na ci ay question actualité yoo xam ne relance lay doon jotaay bii di ñëw incha allah rabbi moom la ñuy tàmbalee ah. bi ci njëkk muy li nga xamante ni mooy lan mooy jàpp ak lan moo ciy farata ak lan moo ciy sunna ah. ak li nga ah. xamante ni mooy sangu farata muy sangu janaaba ah. naka lañ ko war a def kan moo ko war a def ak mm-hmm. naka lañ ko war a defee mooy ñaari question yi nga xamante ni incha allah mooy question yi ñu war a tàmbalee suñu jotaay bii di ñëw incha allah daal di cay toftal leneen lu ca war a toftal rek incha allah jox leen dig daje incha allah rabbi beneen jotaay ak suñu émission bi nga xamante ni macha allah rabbi mooy leeru diine 313 fii ci biir Amsa TV jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi alhamdulillah jazaytum Bienvenue sur Salam Vision.